Euh, décision bi. Mm est-ce que laqatu ci ginnaaw assemblée nationale pour immunité parlementaire taxul nga jóg. man lu ma def bay am bay wut immunité parlementaire. Ah, lan laa defar immunité parlementaire. ah mais mbiru Adji Sarr dañ la ciy dégg. non mais ñoom Adji Sarr. mbiru Jérôme euh, Bandiaky dañ la ciy dégg. ah bon mbiru terrain yi nga xam ni Atepa doon na wax dañ koy toj dañ la ciy dégg. non mais xam nga loo xam nga. mais dama lay wax rek. non mais non xam nga loolu jotewul ak immunité parlementaire. fi nga commencé xam nga da ngeen waxu terrain dañ koy toj dégg nga Atepa wax ko xam nga dañoo wax fii lañ maa convoqué des ko su ma yóbbu samay këyit ñu ne ma sa lépp normal na am déet ñëpp yëg nga ko kon wax jooju féete na boor benn mbindum bànjaki da ngaa dégg man kenn di ma jàngee ma jàppale dañ ko woo ci nañ ma woo ku ko ku ma ci woo ma porté la parce que kenn sañu ko mbirum Adji Sarr mi ngay wax man maa ni taxaw ci devant les de télévision di Sénégal mhm. ni Adji Sarr maa ko aidé mu génn Sénégal te du délit xam nga du délit

def ca sama carburant mu dem fa muy demee. lu tax nga def ko. lu tax parce que c'était humanitaire gis naa ne soxla woon na ko soxla woon na ko c'était humanitaire parce que ba ma ko daalee été jiitu na loolu tëbu yàgg été jiitu na loolu kon tey. loolu aboutissement la loolu ñoom bu ñu nee complot. non non non non ñoom bu ñu nee complot nga taxaw di ci assumer li ngay assumer nii. Hmm? mais loolu. loolu bu ñu ci demee ci yoon wala leneen loolu rek jar na nga dem uti immunité parlementaire wala leneen. ban uti immunité parlementaire. non dama ni yow dégg nga ba tàyyi ñu wax complot. non non xam xam nga yow xam bëgg a dis te wuloo ñu doon wax naan dañu leen a complot lu lu ñoom tey ñoo yor état yor lépp man maa taxaw ci télévision sax plateau morom nee nañ ubbi enquête bi ci affaire Adji Sarr ma leen pare naa la lendemain ma répondre a dégg kenn tontu ci kenn ci ñoom tontul yow nga bëgg nii kon yow lañ la cee man a topp wala de quoi ñi nga xam ne ñooy ndeyu mbili gi ñu may dégg ci télévision laa nekk en direct di wax li may wax te ñeme ko kenn ci ñoom ñëwul tontu nga bëgg ni que yow kon war nañ la cee mën a topp lu tax ñu ma ci topp dañ ma woo man bañu ma ko ma topp bu dee dañ ma war a topp ah parce que man nag aussi sénégalais la su ma defee lu dul noonu dañ maa war a woo mais nag gisuma fi lu ma def lu mais ma jàmbal. soo fa soo waxee ni par exemple ci mbiru jàppale Adji Sarr. ndax daf ko soxla woon lan la Adji Sarr war a mun a soxla ba yow nga war a indil ko ndimbal lan. non mais Adji Sarr sa vie était menacée ici dañ ko fay tëkku fekke ko am fekke wuloo ko am na fi amu fi est-ce que man bu ma gisee une personne qui était menacée. dama am mais dégg naa ni amoon na sécurité aussi bu koy mën a. protéger ci non mais dafa am sécurité ñu rey ko Donald Trump sécurité ñu dóor ko bal fan yee ci ginnaaw George euh, kii John Kennedy amul sécurité ñu dóor ko bal mu dee am déet. gisoo fi maître Babacar Seye rey ñu ko fii tam am sécurité am déet gis di nga fi gis bis bu yàlla sax ku am sécurité ñu agressé ko wala ñu rey ko président euh, Comore fan yi jamuñu ko fi paaka tam am sécurité am sécurité terewul taxul nga mucc mais soxla woon na ko aidé nañ ko parce que Adji Sarr da doon da doon dafa dafa dudd fii làqatu pendant ñaata at mm-hmm. tey bu mënee génn dëkk bi dem fa nga xamante dafa am affaire te xam nga lan nga xamul ma wax ko fii ci télévision bi xaj Adji Sarr xam nga lan ma ko lan la bëgg fi mu nii del si Sénégal parce que Ousmane Sonko nee na pouvoir mu ne ma régler sama problème ak moom. la wax oui. aussi Adji lu mu am del si Sénégal la ko gënal dem boo jaay laa laa laa mujj a déggante ak moom. léegi loo ko ci conseillé ci loolu. nga ni bañ ko toogal fa nga toog. fan foofu la nag. man lu la ciy wax. non mais non attends non mais non c'est pas moi de le dire. non mais man moom bu ko intéressé mu wax ko. bu ko intéressé moom wax ko. mais barki Dembo jaay laa mujj wax ak moom mu naan ma tonton si rek laa bëgg lu ma am ñibbisee ma gën a ko toogal fi nga toog c'est ce que je donc c'est vous simplement que coow li bari na mais nit ñay coow mais Ousmane ko ndeyim bi léegi coowul Ousmane Sonko coowul pourquoi ngeen bëgg ko coowal pourquoi ndeyim bi léegi waxul mi ngi ni méex ngeen bëgg gàddu kombaam lan mooy seen seen problème. man loolu laa bëgg ñu wax ba ko ndax dégg ngeen Ousmane Sonko wax ba mu génnee ba ba mu ba mu nekkee premier ministre ba léegi dégg ngeen mu tudd waxu Adji saa pourquoi ngeen bëgg ko ko tuddal est-ce que yéen bëggu leen a xaawi suturaam kon. dafa am lu mën a xaawi ah mais non parce que ginnaaw mag mag ba nga xamee non non mag ba nga xamee dafa gis mbir nangu wuccee wax nga bëgg koo wax loo mais xam na la ko ko teree wax na c'est une question de bon sens yow sa yoon newu ci. ki mu ki mu soxal tudd ko waxu ko nga bëgg a taxaw di alanku di al nga bëgg cee kott di dinañ ko wax. d'accord dañ ko bàyyi tranquille ba de bu ma doon man de bu ma doon mbokkam. bëggal ko jàmm du ma ko wax ndax xam naa da koy déranger kon. d'accord léegi Madiambal dafa am lu ma dégg. président Macky Sall wax ko ci bi nga xamee ni waa APR yi ñu ngi daje ci seen